ñoom na su yor wàcc na jël na Tapha Tine a suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen jaajëfalaat bu baax di am contentement jano ngeen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen indil li gën a fës ci xibaaru làmb ci noonu damay nuyu borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko ñaanal jàmm ju bare bari ah Bamba moom papa damay kontaan ci mbay Mbaye ko su ma fayee daal ñëw jukkil leen li gën a fës jërëjëf Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu bu baax wante maa ngi nuyu suñu xarit yi nga xamante ni bi jamono bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm a salaam di leen fàttali bi nag huile Jador moo leen koy may ak gammam bu complet boobu mu àndal Aziz Aly Ndiaye daal di koy jiite au Kayar ndox bi ñuy aar moo leen di mooy revue bi jeudi 10 juin 2021 journal suñu la moom xëy ci xëtam mu njëkk comme xëyee nag mooy Sa Thiès la fils de Double Less Bombardier ak Tapha Tine lan la di xamal nag mooy yéeg la wala wàcc gagné ou mbay Mbaye Babacar bu ñu njëkkee ci Sa Thiès incha allah mu war a bëre le 26 juin incha allah bu ci yàlla àndee ca arène nationale ak Moussa Ndoye bu ñu delloo gannaaw tuuti ki ko mujjee daan moom mooy Boy Niang kon kombaam ak ki nga xam ne moom mooy Moussa suñu làmb nee na amul beneen solution bu dul victoire kese bu ñu jógee ci Sa dem ci Bombardier mu war a incha allah le 31 Zule wara a bëre ak Balla Gaye 2 journal bi mel ni lu samp laaj nee na Bombardier est-ce que dina def dóor dóoraat digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 ku ne xam ne ne Eumeu Sène moo ko mujjee daan nanguwaat nangu woon couronne bi ci moom bu ñu ñëwee ci Tafatine. Euh, suñu làmb nee na tafaatin dafa sës ci miir bi loolu moo tax mu jël champion bi nga xamante ne bii moom mooy Boy ñaa kon combat boobu waru cee def benn erreur ba nga xamante ne bii lu dul daan rek la ci war a def. Moustapha Gueye deuxième tigre de Fass sama xëy di xam ne ci journal nag ci soog ba nar a am diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye nee na kii di Sa Thiès dafa màgg maanaam il grande grandi waaye Moussa ne da koo bett dafa indi beneen changement ci wàllum bëree Mbaye Babacar. mu ne Moussa Ndoye combat yi jàll kenn xàmmeewu ko ci ndax li ñu gisoon ci moom ci muy soog a commencé bëre par rapport ak li mu mujj indi bu muy bëre nee na Moussa Mboy Moussa bu kenn xàmmewul la gis ci combat mi jàll wante nag nee na Sa Thiès mbër la ma nga xamante ni bii mu ngi commencé màgg teyit mu ngi commencé am li nga xamante ni bii mooy expérience ci làmb mbër mu naqaree bëreel la wante mbër mu am gannaaw la te mën a bëree. ca noonu nag ca caat boobu ba bambar lañ jëm ginnaaw ba mu amee combat ak ki nga xam ne mooy Modou Dia bu Yoff yaa ne daal fëgg dënnam di nga xam ne mooy Baboye nee na na ko jox avance Baboye mu ko mel ni dafa sex tibb ba nga xam ne sàqameegu ko bëgg a sexaat beneen tibb nee na ñu jox ko avance ki nga xam ne moom mooy ba yi mu bëree ak moom gannaaw boo mu jógee États-Unis def fa ab diir ñëw war a bëri ak Modja nee na fi mu toll nii ñaari avance la bëgg nee na Gaston Mbengue nga na ko jox avance bu Baboy ndax fi mu toll nii loolu dafa xew ñaari avance dafa xew ba ñett jëm ñeent. dóor dóoraat lay doon ca noonu nag kii di Boy Kayre papay Diène Kayre mu nga mer bu futti ca journal suñu lam di xëy na di dut ne nag mooy si toor ay erreur yu bari lay def Mbaye Babacar. Euh, ni nga ko waxee noonu la ŋàññ na ni nga xamante ne bii mooy doxaliinu CNG bi ndax nee na juróom-benn weer a ngi nii ba ñu tabbee CNG bi ba léegi amaluñu benn réunion jëmbale ko ci comité directeur bi nga xamante ne bii Boy Kayre moom daf cee bokk nee na war nañoo respecté ñi bokk ci comité directeur bi ndax décret moo leen fal wante yemul foofu ñëw na ci arbitre nee na arbitre bii di Sitor Ndour li muy def ay erreur ci combat yi dafa bari trop bu bokk na ci combat bi doon dox ci diggante Jacob Balde ak doomam di Mbagnick Kayre ni mu ci doxalee moom nee na àndu ci benn yoon. àndul ci loolu waaye ka ànd ca combat bay am fee ca Gambia people nag di xoyantaan mooy roi Gambie ba Mbaye Babacar mhm. mu ngay xëy di àddu ca combat ba nar a am diggante France ak Leket Bar lam ci xam ne mu nee France su bëggee làmb ja neex na indil waaje xeex bu tar waaye kii di Leket nag la mu mënee mooy bëre pure dur nee na ñoom ñaar ay champion lañ seen bëre dana neex te it danañ mën nañ cee gis xeex mën nañ cee gis bëre wante ñëw na indi xalaatam ak gis-gisam ni mu gisee boobu le combat nee nag mbër bii nga xamante ne bii moom mooy France euh, digganteem ak Leket Baara bu ci bëggee génn dafa dafa war a andi li nga xamante ne bii moom mooy bagaar dafa war a andi xeex euh, Leket Baara nag li mu war a andi moom mooy bëre pure dire su bëggee génn ci mbër bii nga xamante ne bii moom lay bëre. Mbaye Babacar suñu ñu jógee Gambia people rek dañuy daal di dugg ne Saraax Sénégal Ndiaye weekend bu tàng jër. arène national Thiès ak fi nga xam ne nii mooy. Rufisque Rufisque ña fa nar bëri nag bulldozer gin ci la bokk ki nga xamante ne mooy taqee dina fa bëri Mbaye Babacar. bu ñu demee fële ca arène nationale ñu nar fa fekk bulldozer ak gin loolu nara am ci samedi bi wante booy ba léegi Aline Mbaye Nder ak Batista incha allah danañ bëre ci euh, samedi bi incha allah bu ci yàlla àndee euh, ñu gis ne fële ca Thiès si di Diakhaté moom mi nga xam ne moom mooy wane champion yi nekk fële ca Thiès fils de Samba Diaw la fa boole ak Arobas. bu ñu ñëwee ci dimanche bi Assane Ndiaye borom Bawol production moom moo fas yéene tëgg booy puy ak ki nga xamante ne bii moom mooy taqe waaye léegi ba léegi ci dimanche bi fële ci Rufisque stade Ngalandou Diouf ñu war fa am Orton ak ki nga xam ne moom mooy Abdou Guèye nar a nekk weekend bu tàng jër. jaajëf beneen lu tàng jër di face to face bi nga doon dox ci diggante Xaadim Njaay numéro 2 ak Jokkeel te Leewtoo production daal di koy taxawaa keroog nag Mbaye Babacar ci nekk sànni sa morom ay kàddu. ñoom ñaar mu mel ni dañoo xaw a nuroo situation ci. wàllu làmb ki nga xam ne moom mooy Xaadim Njaay numéro de nee na gëj naa bëre lu tolloo ak li nga xamante ni moom mooy juróom-ñaari at wante ba léegi sama xel ak sama xalaat mosul jóg ci làmb wante nag maa ngi waa ngi maa ngi woon continuer di def li nga xam ne moom mooy sama métier plongeur la nekk la ca port autonome jokkeel na ko ak yow ñoo xaw a niroo situation gëj naa bëre wante mosuma bàyyi tekki sama ngémb maa ngi doon entraîner sama combat ak yow amateur yi mën nañoo gis combat bu metti mu nar a nekk combat bu neex waaye ginnaaw bañ jógee drapeau du chef de l'État Babacar tournoi CBAO daal lañ jëm kañ lay amee la 5 ba 7 novembre fii ca Dakar Ndiaye jël Diop. muy tournoi bi nga xamante ne bii réew yu féetewoo Afrique sowu jant ñoo koy amal. mu war a amee fii ci ndakaaru incha allah bu ci yàlla àndee Sénégal fa yéene ko organiser muy tournoi ba nga xam ne lit pur lañ ciy gis bëre ba nga xamante ne bii du am jàpp ngemb wante bëre ba nga xamante ni boo defee trois appuis bokkatoo ci làmb ji. dafa mel ni moog drapeau du chef de l'État ñoo yem ay. règlement règlement boobu lañ la ñuy bëree drapeau du chef daanaka. Dakar lay amee 5 ba le novembre bi ñu jëm allah ca noonu nag journal record lañ jëm kii di Souleymane Astou Diagne Baye Babacar économiste la. Mhm. la xam ne ci journal bi mooy lutte facteur de la te li muy indi ci réew mi koom-koom lay baa Baye Babacar. nee na facteur de développement la ba nga xamante ne bii mën nañ cee jaare suqali sport yëpp yi nga xam ne ñi ngi fii ci biir réew mi wante wax na ba léegi ci arène nationale nee na arène nationale outil la ba nga xam ne day tax ñi bokk ci làmb gën a sawar ci li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji ki yëkkati yooyu la kàddu moo mooy Souleymane Astou Diagne ca lañ jëm nag mooy le 8 août yaa koy fàttali gars yi. Mhm. Boy ñaar ak Tapha Tine bay mu nar a nekk combat ba nga xamante ne bii ci luy baax la. tafaatin dafa bëgg combat bi booy Niang nekk étoile montante nekk xale ba nga xam ne dafa buuxante ba yegsi ci mag ñi nee na Tapha du ma la may dara wante Tapha Tine nee na ko su ma la jàppee man ak yow combat bi du yàgg amateur yi combat bu gaaw la ñuy gis ñu mën koo xaar le 8 août. incha allah fan. arène nationale. dama ko jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar di ko bégee bu baax lan lay tàggatoo wee ñu dem ci émission bi. jox leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm di leen ñaanal jàmm ak salaam. di leen ñaanal jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen ah, damay bégee sama équipe technique bi rek Fama sama caméra woman bi bég naa ci yow Bilal kontaan naa ci yow lool lool xale bu baax bu yaru bu mention spéciale à mon papa ah Bamba ji Bamba Njaay Njaay jaata bég naa ci yow lool sant gërëm waa administration Matu. Mm-hmm. ayda Adja fi Ndiaye Kébé sama infographe bëgg naa ci yow Assane Waalo ah chef rédaction maa ngi koy bëggee bu baax pël bi bëgg naa ci yow ah di kontaan ci ñëpp Mansour Mañporo moom moo maa ne sama chauffeur bi 100% assurance noonu laay def tàggatoo gi jox leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajëf. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention